nga dem ba toog di ko sëy di ko muutuwaale. Mm-hmm. ci seen biir néegi sëy ñoo koo xamante ni si jëkkëram fi mu ko takkee fi muy tëddee fi muy taawloo taaw ba ak taawu kële ñoo maase. yow kon xanaa fi nga ma takkee di ceetu. Mm-hmm. di ceetu yaa ngi seetu fii waaye yaa nga bànneexu fee waa man kon xanaa doyu ma la sax feeru ma la wallaahi wallaahi yaay delloo si seen xel te mm. mbubb moo sol te jotu la bu ko solo sab na yaay am na koo xamante ne nee na ma man damaa bëgg sama borom kër chaque jour ñu toog ma ne ko damaa bëgg ñu waxtaan fi nga am doom yëpp nga wax ma ko balaa say doom di màgg di séyante ci seen biir dëgg la mu ne ma ndax xam naa ni sama jëkkër jubul. dëgg la te mi am ay doom ci àll bi ñuy tas. Mhm. te nee naa ko say doom reconnaître leen wax ma ni yaay seen baay balaa ñuy màgg di sëyante ci seen biir. mais loolu histoire am na fi lu nit ñi théâtre am na. yow man du waxu. soo demee Fatick am fa doom. Mhm. nga dem Diourbel am fa doom ñëw Thiès am fi doom dem Bambey am fi doom. waa xoola dëkk yooyu ni ñu jegeyantoo dëgg la sa doomay dox ba dajeeg doom deret day fayu te deret day risqué nga gis ko bëgg ko am amul ci moom fekk yéen a bokk benn baay nga génn ak moom ba takk ko wallaahi am démb loo xamante ni lu yéeme lu doy waar la démb démb démb la dégg naa ci benn anu mhm. démb koo xamante ni si magam ju mu bokkal benn nday la sëyal xoolal li benn nday la sëyal ba am ak moom doom man def naa ko ano koo xamante ne si ku mu bokkal nday ak baay mm-hmm. waaye kooku sax dafa am fii doom moom daw bàyyi ko fi moom dem ko Côte-d'Ivoire ba amaat fa beneen doom te bi muy daw di ko fi bàyyi mu ngi ëmbaate fii daw bàyyi ko fa waxoon naa ko fi mm-hmm. kooku moom sax jigéen ji moo am part de responsabilité ci loolu mm-hmm. ndax ku góor ki ne fii moom jëlu ci benn engagement am moo jur ku njëkk ki moo juraat keneen ki te ba ba xale bu jigéen ba di fabu mhm. di dem Côte d'Ivoire ni day liggéey téyewu ko new ko ana sama doom waaye daf ko abandonné bàyyi ka ak doom jamu bàyyi fii doom dem am foofu doom ba doom jooju màgg tey ji affecté ku fii mu fiy liggéey ba gisantewaat ak rakkam joo xam magam joo xam ñoo bokk ndaay ak bàyyi ñu sëy yaay léeg-léeg nga gis doom wallaay yaay léeg-léeg nga gis jigéen ju gàddaay daw nga defe ni moom neex na ko fekk neexu ko neexu ko ma ngay dund lu métti ca xolam te góor léegi léeg nga gis jigéen ju ëmb wasin hmm. ñu ëmbalaat ko muy nattu dafa am ñoo xamante ni day ñi am nattu hmm. ñu wasin ñu ëmbaat ñu ëmbalaat leen ñu naan ñoom kat ëmb na ñaari yoon ëmb na ñetti yoon fekk nattu moo la dëgg la te doo am yow ku la comprendre doo am koo mën a waxal wallaay dëgg la fekk loolu du sa sago hmm. nekkul loo xam ne lu la gënal la waaye nattu bu wàcc ci sa kaw la dula neex ben yoon boy gaday di daw sax do ko tay ta mm-hmm. lolu foog nit njaay comprendre la nga mën ko wax sa situation pour mu xam la mm-hmm. amna goor ñoo xamanteni dañuy tak jigen liggey la ba do xam fo ne mm-hmm. di la fawee di la yàq di la di nga defé ni ku jigen ko bu ko defé sa yaay naan mo manki mo ñank fayda ni koy ka nang am fekk la ngay def da nu mur sey bët bus bu muroy kew nga do nga xam fi nga nek muy lu fi bari nañu bàyyi xale sax day fekk nga nekk xale yaay bu ko defee ñuy naan sa yuur waa ku bàyyiwul dos bi ci mbedd mi waaw nga xam ne moo bàyyi mayee yam mhm. xamul une heure jot xamul mi dee jot yàlla def ko nam ko soobe mhm. bu sañoon mel ni ñun nii di ko romb waaye noonu la ko suñu borom bindee mhm, yow nga bàyyi ba guddi jot nga ñëw fekk ko fa mu tëdd yee ko tëdd ak moom kooku du dem visite yan ko doom demul hôpital amul carnet de santé Nek ci mbedd mi di teud ba aku ci fa yaay mhm. yow mi ko def est-ce dina la jik so paré nga wàcc ko fa mhm. ndax dañ ni cielu yalla du noppé jaan bu tëddatee bu ko kenn bës xamo lan mo nek ca koko nga jël ko ci koko dem yakali ji ko sa jabar mhm. jabar ja tok di la muñal jabar ja tok dila la muñal jabar ja nga xamanteni ni ko dépense jabar ja nga xamanteni xamo fu ñuy ah. koy ba mu luyé ñaata la koy fay yow nga jël dem jox ko feebar boobu muy dund ak moom di wéyaaleeg moom waa ko amul loo lekk dinga nga dem am loo fajoo infection. dolli ko charge. dolli ko beneen charge. da nga koy dolli beneen charge. bu ko defee muy faj boppam du ut lu mu lekk. ñu ah? ut ak njabootam lu ñu lekk. billaahi wallaahi. njabootam bu ñu feebaree mu faj. Mm-hmm. nga dolli ko charge. te bàyyi woo arrière woo. sonnoo toqi woo. tàyyi woo ba tey yow yaa ngi wut abandoné ko bayi ko nag daan ah comme kay ki nag dafa am feebar wax dëgg yàlla mënatumaa dem ci moom mhm. xaaral nak gën di njaaba njalle wallahi waaye suñu borom dalay japp wallahi wallaahi dëgg yàgg yàgg da lay jàpp mhm. muus la lay def te bismillah mus wallahi laa da nga da nga da nga yalla yàlla mama delu wat delluwaat jaamu la nak def li nga bëgg mhm. boobu booy wéy na muus te jigéen seeni naw la lañ Jigen jo tak ci farta yalla sunas Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu jonga ma daba don xale wallahi ñu bari bëggoon ko mhm. amana sax yow bi mu sey ak yow ay mbokam daño bañoon wallaay ndayam bañoon na wala bayam bañ wala ay mbokkam wala koo xamante ni sii mhm. mbokk mu ko jege mu sës ci mom bayam takkaloon ko sagar daan ki kat bu sama dom ji bu magge ki la koy may mu màgg ne papa mu naa mu wañ loxo papaam ni bëgguma ki kat ndax ki la bëgg papa sey du choix sey chance la ki la bëgg may ma kii sa bay bañ mbaa bolé liko neex ak liko ko naqar dal di la koy may nga and ak mom di daanu ak di jox wala say mbokki jëkkeer ci bopam bañ la sa jëkkeer bëgg yow nga bëgg nga japp mu japp nga ne ko wu ma sa ay mbokk ma faalé wu ma may mbokk na and ak ñom ta yalla tax mhm. nga and ak mom ba sa biir touru tax mu xamni to dem fenn te adina du yag ba nga am metti wala nakar ñew dal di koy wax sa yaay wala nga wax ko sa papa ndax xolal ba nga ne ba nga ne ñap ñu ne ñap dañ ne la mukk du fi mhm. du fi fi la nga ne len fofa ngeen wax ne fala du fa bëgguma koku la bëgg nga tok ak sangor mhm. lolo waral jigen ni léegi cancer du sein bari na stress mo len koy jox euh, goitre bari stress mo len koy jox cancer cardiaque bari stress moo leen koy jox cancer ci suuf macha allah yal nañ ci yàlla musal bari na ak bari te infection bu baree koy indi ak infection ak di cuuc fii di cuuc fii di cuuc fii rek la leen tey am ci seen jabar yi ngir yàlla ak yonent bi di raxasu ba set wecc ni jigéen di raxasoo góor noonu la war a raxasoo góor it warta dikk rek ànd ak saw ñaq ak yendoo saw yendoo tuur ndox nañ ma baal yendoo tuur ndox ba dikk sa caleçon forox toll sa tubay forox tool nga dikk rek daal di xemmam sa jabar rek daal war a mën a dindi sa sa sa Ablaye Ndiaye rek nag daal di jëm ci moom dangay raxasu ba set wecc comme moom ni muy raxasoo ba set wecc dindi lu baree baree bare ci yow. dëgg dëgg waaye yow ànd ak sa microbe ak sa lépp rek daal di ñëw rek daal di bëgg a jël sa kii rek pénétrer sa jabar mën naa ñàkk. dee raxasu yéen tamit góor ñi mm. dee leen raxasu nag ngir yàlla ak yonent bi bu dee nag mënoo leen a toog ba mënoo leen a toog mm-hmm. waa ngeen di xool nan ngeen di def nag pour bu ngeen di ànd sax ak seeni jabar wallaay dëgg la laay yaay booy moo moo mooy mooy sa kàddu ak am solo ñu xool ñu xool lu ñuy def pour bu ñuy ànd ak yeneen ak jigéen ndax sa jigéen sa jabar sax xam nga ne mënoo ànd ak moom ak ak di protéger wu. wallaay wallaay dëgg xam nga ne loolu mënta ne. wallaay dëgg am na nag ñu koy def. ba pare am na koo xam ne man wax na ma loolu. Mm-hmm. jëkkëram dafay ànd ak moom di protéger wu. ba mu waxee ba waxee dama ko ne carrément yow xamoo sax sa jëkkër lan moo tax mooy ànd ak yow di protéger wu mm-hmm. ndax depuis boobu ba tey comme mi nga ànd ak yow di protéger wu munaa man ko nga bàyyi ko boobu ndax xamoo ba xam day fo ca biti xamoo ba xam dafa am feebar xamoo ba xam leneen ak leneen ak nga ba ko loolu. Mm-hmm. donte nag neexut neexul. Mm-hmm. ndax ku sañoon booy ànd ak sa jëkkër du ànd ak yow ngay muy protéger. Mm-hmm. waaye comme moom loolu la ko yàlla jagleel na ko munta yàlla rekk tax. waaye yéen it nañuy protéger wu ci biti. bu ñu protéger ci biti comme mënuñoo bàyyi fo. te comme suñu borom dañ la taqal bo zina bul laal bu jege te mhm. ñom ña ngay laal di jege di ci fey di ci ni ci ci mbax ci bir comme mhm. mëno leena a wa waa ngal la nak nag leen protéger wu ndax ngeen aar ki nga xam mo ngeen tak bay ko ci bir kër gi wallahi dëgg la wallahi dëgg la muy lu am solo li sama yaay wax ba paré njabot gi la yërëm ndax ku sañoon fu la neex ngay juddo ku sañoon président de la république da nga nan vraiment bëgg mu nekk sama papa mhm. waye nak yalla la sak jaara la fi ko neex te yow mi nga xamante ni yaa jëf sa jëf ju bon jooju ki nga xamante ni moo ciy juddu kooku amul choix. Mm-hmm. ci yow la dal. Mm-hmm. waaye kooku bu juddoo moom ci boppam sax bu màggee am na yoo xamante ni bu ko déggee. Mm-hmm. du ko neex ndax chaque jour nga dégg nga xuloog nit mu ne la nopp moo mag borom. nga la waaye bu leen utal seen doom yi xas. kon yaay euh, émission bii nii la woon mu mel ne sunu waxtu danoo dab. ñu daat lay bàyyi rek nga daal di tàggatoo ak mbokki internet Sénégal 7 yi la doon. waaw sant yàlla bu baax dama ceena sant yàlla bu baax julli ci yonent bi. Mm-hmm. alayhi salaatu wasalaam waa di wax ni góor ñi rek nañu gën nañu gën a góorgóorlu. Mm-hmm. nañu gën a góorgóorlu bañ nañ ko bañ ni góorgóorlu. Mm-hmm. te góor dafa war a góorgóorlu. wallaay dëgg la góorgóorlu ci sa njaboot góorgóorlu ci soxna si la yàlla booleel. lu te yàlla tax. góorgóorlu ngir ëllëg ndax nag ëllëg du añ du reer waaye lu mat a sedd la. sédd leen ko bu baax a baax sëdd leen ko bu baax a baax. Mhm. li may wax chaque jour wax naa ko ci biir émission bi yàgg naa koo wax. mbubb moo sol te jotu la bu ko solo sa nawle. déedéet jeeg ji seeni nawle lañu. déedéet jigéen ji nga jële biir këram. Mhm. indi ko ci sa biir kër sa nawle la. Mhm. ngir yàlla ak yonent bi jàpp leen ci. ndax ñun yéen la ñu faral waaye yéenay suñuy xarit. di jéggaluwaat ñëpp lépp loo xam ne wax nañ ko fi muy lu laal nit wala muy loo xamante ni si lu lu lu metti ni tuuti la rek. Mm. ñoo ngi lay jéggalu bu baax a baax a baax xam ne ni tamatoo lu ñu fax mu jubit ñu xam ni suñu borom la. Mm-hmm. di leen jox di dajee ba beneen émission. incha allah. Euh, jërë ngeen jëf lii lañ leen indiloon tey ci émission bu mag bi la di émission Dialdiali ah, lépp luñ ci wax rek kon ni ko sama yaay waxee euh, mu xaw a dëng sunu matadi la waaye bu jubee rek yàlla sunu borom la kon lii lañ leen indiloon ñu ngi leen sant di leen gërëm bu image yi rafetee lool nag wax ji leer macha allah Hamidou la ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal yàlla di ko sant di ko gërëm. liggéey bi rafet na lool di gërëm képp koo xamante ne rek yaa ngi ñu doon teewlu jërë ngeen jëf beneen émission ak beneen thème.